aajo moom euh, yàlla yàlla ñu yor ci suñu musiba bi lu ko gën ndax yonent bi moo ñu ko te waxam wóolu gannaaw bi nga xamee ni kii di Chérif Mouhamed Tilmidji ñu koy mu fas yéene ko fii ci Medina gannaaw bu mu dëddoo àddina fële ca Dakar ñu ànd ko fii ci Medina lan mooy relation ak Maolana Ibrahim. moom relation bu dëgër la. Euh, dañu commencé ci diggante ki nga xam ne mooy xaritam di Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne mooy bàyyi Mouhamadou Bachir mooy bàyyi Hadj xaritam la woon moom commerçant la woon boo xam ne bu amoon li nga xam ne lii mooy euh, business yu mag a mag a mag loolu euh, lool mbiram euh, Sofianke xamutoon nit bàyyi waaye xaritam boobu mu ko ci kiir naa boo xam ne daal bëggoon naa nga yàlla def aéroport la njëkk gisee Baye fekk boobu bi ñëwee ci aéroport bi bëri lool kenn amul mënta dem naar yi sax pour ci Baye dafa jafe waaye moom borom kàttan moom ba mu xasee ne jàkk Baye rek dafa mel ni booba daal la am jës ci la poussé police yi dem ba àgg ci Baye Joal jógee fa ñëw Médina jaar ci kër Cheikh Ahmad euh, Kos euh, mu ne ko bàyyi noonu koo xam ne mën nañ ko gis léegi ndax nee na guddi gu gën a guddi guddi googu moom mosu koo gis moom tilmi ci guddoon na ci moom lool maanaam soppe boo xam ne yàkkamti ngaa dajeeg moom guddi gi guddi gudd lay dox yàlla dimbale ko mu gisee bàyyi bàyyi jox ko wér daal di ko jubooleeg Seydi Ali bés boobu du ci bés boobu waaye ba mu mën see la Seydi Ali moo ko tarbiya waaye nee na bàyyi moo ko mottali tarbiya ci loxo moom bàyyi ko tarbiya ci bopp euh, Seydi bàyyi mu nekk nit ku doy waar ndax boo waxee mbëggeel taalibe bu bëgg te bëgg te sellal li Baye doon wax ci benn lettre ne suma yéen a ngi wax ne suma taal bi ndab la lu fees dell ak mboolem lasraar yi mu ne loolu dëgg la waaye kan mooy suma taal bi ci yéen moo gën a jafe ak kibritul ki nga xam ne mooy ci ji moom la ñoo wax ne am na tilmi kibritul ndax koo xam ne dem nga ba àgg ak Baye seedeel la ne ñett ñi ma gën a jox alal hmm. liggéeyal ma ci alal jël alal teg ci sama loxo kenn ki mooy tilmiidi kenn ki mooy abdul malik bàyyi yaabal bis hmm. kenn ki mooy muhammadu misri di xaritam boobu hmm. nga xam ne mooy bàyyi xaaju bu misri te moo waxoon ne na ko bàyyi boole ak moom ndax mu bokk ci ci xidma yi nee na ñett ñooñu ñoo ko jox lu ëpp lu mu téye ci alal loo ma la ba bàyyi gërëm ko àgg na ci inna alladina xadamu ni naalu muraadahum saadatan wa maal waaye am muraada nag paasuwut nga nekk taalibe bëgg bàyyi ba bi ngay jógee Murtani di ñëw di gàmmu si mhm. gàmmu ba léegi ñëpp si ndax moom am na lu doon nekk waaye nag moom taalibe la woon ndax daaw dugg ci xabru bi lépp léegi laa tàggoog soxnaam soxnaam day faatu suñu bàjjen. mu ne ma daaw fi dugg. mu ne daaw fi dugg nee na moom moo ko daan foto. xam nga di ko ko woon waaye daaw fi dugg. bañoon na ko itam ba demee ba ca sëgi Medina yi. fa nga xam ne fii moom la bàyyi euh, daal di fi daaw. foofu la utul ak place. defar ko ba mu baax ñaan ci digal xalifa bi pour ñu rob ko fa. bi muy ñëw itam. kon nañ dem ndax li yàlla nar bu ko defee fii ci Mourtani balañ mm-hmm. ba balañ koo yëgal waa Medina danañ ma romb te man Medina laa tànn bokk na ci jihaatam yu yi nga xam ne moom la def ci biir hôpital bi mu doon fajoo képp ku ñëw di ko faj maa koy jox garab dana la laaj kan mooy sa sëriñ ak ci ban tariixa nga ne <laughs> boo ko tontoo mu ne de fii ma toll du ma wax caaxaan maa ngi lay laaxee biir ne gaawal liggéey bi mu sa defal liggéey baay oo jaam yàlla yi jëmee leen ci ki nga xam ne mooy borom jamono loolu la nekkee woon ci ba bu bisam bu mujj ñu ne ko tey da nga am rendez mu ne leen man rendez-vous hôpital bi sama rendez-vous jamono wax wax mën a dem te wax yàlla bañ koy yóbbu itam bi moom ko joxee garab itam mu naan mu ne leen moom naan te rox bis boobu te bokk na ci li nga xam ne moom la ko yàlla jagleel imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé moom ko nettali muy euh, confirmé at bi ne gannaaw lañ koy wax gannaaw aljuma nee na xalifa bi wax ko ne ko ne ko euh, di mas naa am soxla ci bàyyi wax ko ko mu dem wax ko bàyyi bàyyi na ko tilmi di dama ko gàntul benn soxla dama ko gàntul benn soxla laa arfu du la doo talaban ko may place bi tey ndax koo xam ne sàkk nga dëkk ak baay jógee ko ba Mauritanie ñëw toog fi gàmm ba fii am looy nekk ba bés jot nga ne naanoo dara bés jot nga ne demoo radio boobu mooy ne am nga beneen rendez-vous looloo tax tamit tey fi jël décision bi ak mboolem njaboot yi ñu taralee mu denn fii ak sa Aliou mi nga xam ne mooy euh, euh, mu te mooy ki nga xam ne itam moo ko jox la jaar sax ci diggante baay kon daal nit ku màgg la shérif la borom alal la woon waaye keroog ba mu gisee bàyyi la bàyyi lépp féetewoo bàyyi weeru koor wu jot fii lay toog moo benn waa Nigeria bu ñu wax Xadiru moom sax ñëw na bii xaritam la ñu daan toog ci foofu féete kër Seydi Aliou ci benn euh, euh, euh, amuud daan nañ fa toog man daan naa fa toog ak ñoom ñu ci bàyyi rek nit la koo xam ne ku yàlla tànn ku bëgg bàyyi waaye ku bàyyi bëgg moo doon wax ne jëf baax duñ fee fàtte tey ku siyaare bàyyi dama ko siyaare ku ñëw ci xam li fekk ko fi loolu nag mas naa koo wax nee naa euh, borom jalaal dëgg boo ko bëggee gis mhm. da ngay dem Fass ca xabru Cheikh Ahmada Tidiane ndax da nga fay fekk góor boo xam ne lépp lu jógee xadratul itlaq jaar ci yonent bi moom kenn ko attan waaye jalaalam itam kenn attanu ko day wax ne suma xabru kuñ ci rob nga dem sa bopp Cheikh nag boo ñëwee da nga fa fekk ñes da fekk Diouf da fa fekk mhm. salaamaaleykum. macha allah Oustaz yéen a ngi jaajëfal bu baax a baax baax di kontaan si témoignage bi yàlla guddal sa fan yokk xam-xam bi barke Maolana Cheikh Ibrahima ñu ngi lay jërëjëfal bu baax sa disponibilité ci képp ku la soxla rek nga taxaw nangoo wax moom xeebuloo kenn yal na yàlla yokk sa fan yokk xam-xam barke Baye.